والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi rawatina yéen ndongo daara yi ak mbooleem ñu mokkal alxuraan mën koo bind mbind mu rafet te wér te doo ko geestu kuréel gii di yaatal mbindum alxuraan ci ndimbalu C3S compagnie Serigne ñoo am mbégte di leen yëgal jongante mbindum alxuraan bi nuy amal bismillahi rahmani rahim نور والقلم وما يسطرون yaatal mbindum alxuraan li ko tax a jóg di soññ ak ñaax mbokk jullit yi ci mbind mu rafet te wér ñoo leen di ñaanal jàmm tawfiix ak taysiir anta bi ni'mati rabbika bi majnuun